Médina Malika di ab gox bu nekk ci commune bu Malika fii ay góor ak jigéen yu jaaxle lañu fi fekk li ko waral seeni suuf la nguur teg loxo gannaaw bi nga xam ne Promoville dafay gas ñaari bassin de rétention boobaak léegi ñuy daw ci ginnaaw ay ndàmpaay yu leen nguur war a jox Aboubacary Aw yor seenu kàddu dikkaat ak ñun ci jafe-jafe bi ñuy dund bi ñuy ñëwee waxtaan ak ñun ci affaire projet bi réew mi la nangu ñoom ñu ne ñu fi bëgg def bassin fi bassin quarante et un quarante deux on se réunit au domicile du chef de village mais bien avant boobu y a eu des rencontres nga xam ne ni ils l'ont fait au niveau au niveau mairie ba fële sans pour autant que les impactés soient au courant parce que boobu temps délégué de quartier yi leen woo ñu ci kii yooyu mais impacté yi kenn kenn woo ne projet bi loolu loolu leen ñun compte ñu projet bi mais mu bëgg ñu leen jël ci ñun leen jox ñu suñu ndàmpaay mais ñu doon rassuré que ne ne oui effectivement affaire bi euh, lu mu jël ci yow dina la dina dina c'est ce n'a pas été fait am na ñi xam ne jox na leen am na ñoo xam ne dem joxuñu ñu ne ñooy dina fixer le taux ñun ku xam xam ne ni terrain quinze mille le mètre carré foo koy amee foo amee fooy amee kenn ñun wax ni ñoom nan nan nan jël ci ñun na ko jox ci suuf bañuñu dañ ko jox ci ko jox ci suuf ñoom ñoo ñu imposé quinze mille de mètres carrés soi-disant qui se sont référés sur un décret de 2010 quinze mille de mètres carrés ñu dañ leen wax ñu yi lan la ñuy lan la ñuy kii un mètre carré ñu ñu fay ñii daal di bàyyi ñu ne yi ñuy def ñu def recensement ba ñi nga xam ne kii mu ñëwaat fi defal recensement sur le terrain mais vous ne vous promet rien mais dinaa saisir dinaa saisir autorité yi yi nga xam ne ni saay ñoom ñooy mbir mi mais à ma grande surprise ce préfet wawaatul on se lève un matin on voit ça les bérets waa jaune fees lu dell nag pour que ñu suñu manifester ah ñu ne doole dañuy nous sommes des non-violents là. xeex ñi moom soo ko jëlee dinañ la topp duñ topp. gannaaw kàddu yi leeral yu góor gi Ababakary Aw yooyu yeneeni naataangoom àddu nañu jëmale ci jafe-jafe bi nga xam ne moo leen teree nelaw fi mu ne nii. waaw maa ngi tudd Fatou Traoré. am Malika la ñu am ñoom jëndal fa suñuy goro jëndal fa suñuy tarak dañ koy jënd ndox amu fi wante depuis leer bi affaire bi commencé bis boobu la ñu woo Talla mooy expliqué affaire yu terrain yi wax ko wante waaw. waaw taxawaay wax nañ ko te bis bi bu yegsee Talla dafa ñëwoon yëgul loolu. man nag maa ngi tudd Cheikh Mara dëkk Malika depuis ci lañ ma gox ji jaay ma fa benn terrain bi nag macha allah wax dëgg yàlla fekk ndox samay dem fi ñu daa fa fekkoon ay tool yi fii béy kon je crois que fii waaw ku fi jëlee woon jóge fi ay chef de quartier ay jamono ñu ngi seet si nañu képp ku fi am terrain daa lay recensé nga jox ma sa kayit ma yóbbu ko parce que dañu ne képp ku ñu nangu sa terrain fii képp ku dessin bi wala canalisation bi jaar sa sa terrain dañ lay fay. Malika fi ñu fi am. titre foncier ñu néew la mën naa laa citer par exemple Sonatel ak beneen borom tool bu fi amoon kenn mais ñi ci des ñëpp ci périmètre villageois bi la ñu nekk ay acte de vente la ñu am ak ko doon ci seen maam ñuy teeree duñ leen ko may ñuy teeree duñ ko jënd. xam ne ñoo dëkk Malika yëpp suuf si nga xam ne moom la ñu cible si surface bi nga xam ne ni fa la basin bi ne suuf si ku ko xool xam ni du ban suuf su weex tàll la lañ fiy génne yëf yi bu ñuy door daan nañ jàppantee leen dàq ñuy génn parce suñu gàncax yi dam na gàncax yoo xam ne ni nangu lay daal di ko jogg ñu si daan xëccoo ñoom di dàq leen buñ demee si meer Kayar moom moom mujj yabal magum kër magum kër kon situation yi bu demee ba toll fii mu toll moom magum kër moom moo ñu ñu yëf yi fa muy ne day nii dinañ fay borom tool yi kon tey lii projet bi Malika ku mën a wax ñun borom tool yi tey waruñoo toog di kër moo war a taxaw ni leen tool yi da di fay borom. yàlla li amul taxawaay te bu ñu bàyyee gars yi liggéey liggéey bi moom la ñu dégg naa ko muy wax projet bi bu muy door du meeri Malika moom moo àndoon ak gars yi ñuy xool ban point la ñu war a def basin yi dañu trouvé quatre points yi nga xam ne ñoo war a def basin yi mu ànd ak ñoom dugg si borom tool li xaw a doy waar ci mbir mi nag mooy daa am ñu bokk ca ñoom maanaam ay impacté ni ñoom yoo xam ne jot nañu seeni ndàmpaay ba noppi ñoom ñii nag ñu daw jot seen wàll. nit ki soo jëlee alalam da koy jox ndàmpaay surtout que nag ndàmpaay bi am na ñi nga xam ne commencé nañ leen jox seen ndàmpaay ñeneen ñi ñu duñ leen jox. seen ndàmpaay ñu ne nag ñun du ñuy jóg pour que li may wax toujours di ko wax mooy di wax ni ñun sarxuwunu ñaanu du ñoo bëgg mu rétablir ñu suñuy ay droit li nga xam ne ni jël nañu ko ci ñoom ah nañu jox suñu ndàmpaay am na ay terrain terrain à titre d'habitation yi nga xam ne ay bâtiment ngi ci biir am ay am am ay terrain am na ay terrain yi nga xam ne à titre agricole la yooyu soo ko recensé ñu ne fay parce que dañuy nekk ci biir ndox ci ma leen di yëgal ne ndox moomu mais du ñu ñoo ko bopp du ñu fii dañoo su dem fi fekk suñu musaane ñëw fii. suñu tànk yi day ci suuf si suñu oto yi dañuy njëriñ yoon ñu defar benn tali dafa benn canal à ciel ouvert bi nga xam ne ne amul finition ci ñu lay Kébé en 2006 defaat benn canal bi ci tali ba fële ci benn canalisation ndox mi gën a versé 2006 2009 de 2006 à 2009 si mel ñu commencé am problème inondation chaque année ñoom suñu ñëwee manque ki manque euh, ndox mi mais dinañu permettre ñu occupé waat suñuy terrain di ci di ci liggéey mais dina xamee ne dañ fi def bassin bu ñoo bàyyi situation bi mu purée ñoo créé problème bi parce que rien que rek pour ku ñëw taxaw fi ne la ah waaye ñoo ñoom bu ñuy kaas kee ci dex la ñu nekk ñoo ñëw forcé dugg fii ak seen i seen i appareil gën a des gën a xal ci bassin soi-disant bassin bi léegi ku ñëw fi rek léegi ku ñëw ndox ngay gis ne mais ah ñii ñoom ci fii moom dex la alors que ñoom ñoo créé situation boobu ah dafa am la nga xam ne nag dafa jéggi day waanam ñu jëndee ñu ñëpp maanaam ci même principe ba ñu jëndee waaye ba ñu demee dafa am ña nga xam ne dañ leen a wóor Promoville woo na leen convoqué na leen déglu na leen proposé na leen am na ña nga xam ne fay na leen moo xam suuf la ñu am muy tool wala ñu am terrain wala ñu am ay kër ah, mu am ña nga xam ne nag ñu mel ni man jënd naa fi mais kenn mësuma woo te déposé naa fa ma war a déposé mu am ñeneen ña nga xam ne am nañu ay kër mais ba tey ñu may wax a yow mësuñu leen a woo fayu ñu leen am ñeneen ñi nga xam ne aussi am nañu ay gàncax ba tey ñu may wax ak yow kenn woowu leen wala sax am na ñu ci recensé mais ba kenn fayu leen am na ñi nga xam ne fay nañu leen léegi nag loolu nag nekkoon na vraiment lu ma jaaxal si état de droit bu mel ni Sénégal dem naa si ki nga xam ne mooy kilifa dëkk bi muy sous préfet am na naa fa ay délégation euh, li ma gën a jaaxal nag mooy lii si wax bi ban fa yeggee dafa ne dafa am lu ñuy wax éligibilité par rapport ak ña nga xam ne dañu leen a fay ah je lui ai posé quand la question à savoir éligibilité boobu si yan paramètre la tëddee paramètre lan bu dee li fi nekk dañu fay am suuf ñoom ñu ko amee noonu lañ ko amee parce que si même périmètre la bu dee titre la ñu am même titre bi ñu am acte de vente ñun ñuy toog fii tey acte de vente lañ am bu dee tamit construction la même bâtiment yi nit ñi tabax moom la ñeneen ñi tabax waaw mais kon dañoo bëgg a leerlu en tant que sénégalais en tant que ñi nga xam ne ñoo dëkk goxu Malika lan mooy tey ute bi nga xam ne dangay ngay fay kii day fay da nga fay ki si des. mairie ba mais euh, sous préfet ñu ne digguñu dara mais responsabilité bi nga xam ne moom moo tegu si njort moom dina ko dox jox ko kilifa kilifa keroog ba ma génnee maay naa sama papa waa ji ku dëgg la ku am la. suñu mbetteel si moom mooy ñun dañoo xëy xëy gis gars yi ñu wàccee fi borom de homme de tenue lu tax ñu wàccee leen war nañoo woowaat ñun waxal ñun ni ah ñun de dañoo waxoon ne lii ak lii ak lii lii yoo tax warul mënta nekk ak lii jënduñu ça fait que homme de tenue yi taxaw mais ban njariñ lañ fi am. El Hadji Diongue di kenn ci ñoom jàpp ne sax mbir mi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey. mais Sénégal benn loi la droit la. ak benn justice ça veut dire que ne Sénégal amul jox kii bàyyi kii parce que balance justice u Sénégal lépp lay yemale léegi nag loolu moo nekkoon peut-être message ba nga xam ne bëgg naa képp ku ko war a mën a dégg fii ci Malika mu dégg ko mais en même temps au niveau national képp ku ko war a dégg ki nga xam ne yow tu optes pour défendre maanaam liy droit loi ak justice Sénégal nga jox nu maanaam yollu parce que fi ne nii li ñu bëgg a jaay mooy doole wàcc fi ay jeunes yi teg leen fi parce que ñun dañuy xeex ak jeunes yi buñ fi toogee dañuy perte seen temps yaakaar naa ne yaa na yaa d'autres mission yi nga xam ne suñu homme de tenue war nañ ko doxi pour assurer sécurité bi. te nekkul problème impacté Malika yi kese ñun ñuy impacté ñun ñuy impacté ñu nekkul suñu problème problème problème Malika la waa Malika ñëpp ñëpp ñëpp ci si amoo fi terrain amoo fi tool te bokk ci cosaanu dëkk bi rek xeex yi sab xeex la war a doon sa fekk waruñoo nangu ni état ñuy dégg ci yeneen dëkk état jël seeni suuf dédommagé leen ñëw Malika jël suufu Malika ah dédommagé nga nit ki ba pare ñu war ci suufu Malika jël suufu Malika joxaat ka nga dédommagé waat kon ñi nga xam ñoo dëkk Malika moom suñuy suuf suuf si nekk fii pourquoi mënuñ ñoo am ñu am ñu am. ñuy sàkku nag ci ñi yor dogal ci réew mi rawatina njiitu réew mi Macky Sall ñu dimbali leen ngir ñu mën a jot ci seeni ndàmpaay. di sa appel saa yi à ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi jàppale ci mbir mi. yàlla na leen yàlla ñu ñaar xam ne ne aussi yëg nañu mbir mi ca war na cee mën a jàppale ñu ñaan yàlla nañu yow la jàppale autorité parce que du wax te du tudd président de la république parce que président de la république bu ñu ñëwee fii dafa ne fii kër gi fi jël yëfu jaadu te doo ko jox doxe na ko waxe na ko waaye nag lii dama yaakaar ne ni ah daf ko yëgul mais su ko yëgee moom ak soxnaam Mariam Faye Sall ñu jàppale ñu jaay ci kattanu yàlla mu ñëw ndimbal te yàlla tax waaw comme ni ñu ko waxee rek waaw Macky Sall dimbali na soxnaam dimbali na te yàlla tax ñu jot suñu teeree mu ñu amee suuf suñ fu ñu yóbbu sax ñu jël ndax lii la ñu am. waaw bu ñu fayee itam ñu jël waaw nga xam ne euh, euh, quinze mille francs yi ñuy wax buñ ko dajalee ñu ne fu ñu jënd terrain fu mu am. jéem nañu jokkoo nag ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa mairie bi wante antoogul du ñàkk fan yi ñu jëm ngeen dégg leen fii ci Sene Info ñoom itam ñu àddu jëmale ci mbir mi.